le président maître euh, le député de la CEDEAO et de l'Union africaine membre du comité directeur du PDS Ibra Diouf Niokhobaye il est aussi président de la d'une grande centrale des enseignants il y a madame Aminata Lo chef de parti présidente de Appel Proche Il y a Madame Delamadio Diouf, Parti de la Réconciliation nationale, ancienne ministre. Il y a Monsieur Djibril la République, Il y a d'autres responsables. On peut citer simplement Cheikh Mbacké et Serigne Touba Massamba qui est toujours à côté du président Madické. Non pas parce que ce sont marabouts, mais il s'est investi la justesse de la cause que défend de manière ramassée, voilà ce qu'on peut dire. te on vous passe la parole. dans la salle. Dans l'heure où il avait demandé parce que c'est notre première, notre première présence dans ce siège. On va lui demander de prier avant, avant de prendre la parole. Amen. On va prier et puis on va commencer. Salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay dalal ci kër gi waaw ñu mos la ci seetaan ne mooy xaw soxna ak na seetaan la ji jàng sama xam-xam bi jàng fàtte na te jéego sama xam-xam ñaan yàlla may vécu le métier ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, il a fait aussi que nous avons eu toujours des très belles relations confraternelles. Et donc je parle à quelqu'un que je connais. Je, suis, je, je, je, commence par, par, par, par lui présenter des, des, remerciements sincères et chaleureux pour son accueil. Il ne me surprend pas pour les raisons que j'ai indiquées. Et j'ai eu le privilège et la chance d'être le premier invité de ces locaux. Donc, euh, je, je vous souhaite une bonne implantation dans ces locaux et beaucoup de courage. Parce que la tâche, la tâche est très difficile. Donc, comme vous le savez, cette, cette dans le cadre rencontres que j'effectue auprès des différents candidats. Dans le cadre du projet de mise en place d'une plateforme opérationnelle de sécurisation du processus électoral. Comme vous le savez, nous nous acheminons vers une élection présidentielle. J'allais dire, sans être un oiseau de mauvais augure, de tous les dangers si on y prend garde. nous devons tous avoir la responsabilité citoyenne de prendre conscience de la situation actuelle. Il faut noter un point extrêmement important. C'est la première fois que nous acheminons à des élections sans consensus. c'est la première fois que nous acheminons à des élections sans consensus. Notre pays est un pays démocratique qui a une tradition de consensus. Abdou Diouf avait accepté le consensus. J'en sais quelque chose parce que en dehors même du code électoral consensuel de 94, 92, Diouf s'était aussi montré consensuel. Monsieur Diouf se rappelle peut-être. en 1999 avec l'intercession de la société de l'audit du fichier électoral. C'est ce qui avait permis d'aller à des élections que tout le monde redoutait. Nous avons fait entre le palais le point E. Je ne sais pas si M. Diouf se rappelle. Et c'est sur la base de ce consensus fondé sous la supervision de la société civile, que le président Abdoulaye Wade a accepté d'aller aux élections. Le président Abdoulaye Wade a accepté un consensus. En décidant, sans y être obligé, de nommer un ministre de l'Intérieur, un chargé des élections, qui n'est pas de son parti. Nous ne pouvons pas faire moins. les citoyens sénégalais ne doivent pas accepter qu'on fasse moins à l'occasion de ces élections. Pas pour des raisons d'intérêt national ou des d'intérêt général. L'absence du consensus est simplement liée au bon vouloir d'un candidat de faire un forcing. Et ça, n'est pas acceptable. Notre tradition démocratique, nous ne pouvons pas transiger là-dessus. Cette élection n'est pas une affaire de candidat, j'insiste. j'insiste, je suis venu voir un candidat, mais je vais insister dessus. Il faut que chaque citoyen de ce pays prenne conscience du fait que ces élections constituent un enjeu majeur à deux points de vue. La sauvegarde de notre système démocratique. Si on accepte d'aller à ces élections sans apporter les collectifs appropriés pour que l'élection se passe dans les conditions transparentes, notre démocratie, qui est déjà malmenée par le candidat sortant, ne va C'est le premier enjeu. Il y un enjeu qui se débute de cet enjeu Si ces élections ne se font pas dans des conditions de transparence conformes à notre tradition démocratique, c'est la stabilité et la paix sociale qui, sera remise en cause. Il faut que tout le monde ait conscience de ces considérations. Ce pas une question de parti ou d'intérêt partisan. C'est une question d'intérêt national. Et les intérêts nationaux ne peuvent pas être transigés. aucun intérêt individuel ne peut, ne peut, ne, ne peut se au-dessus de, l'intérêt national. Et aujourd'hui, la situation est claire. Nous avons un candidat sortant qui tient par-dessus tout à se faire réélire. Pas pour les intérêts du pays, c'est pour ses intérêts à lui. Parce que je rappelle une chose. C'est important de faire des rappels. Est-ce que vous rappelez la, le, le les objectifs assignés au référendum. Renforcement de la démocratie, consolidation d'un état de droit. Quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est comique. C'est très important de se rappeler ça. La patrie avant le parti. Ça aussi, il faut s'en rappeler. La gestion sobre les on passe. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, au-delà des questions politiques, parce que je ne suis pas là aujourd'hui pour ça, les constats que tout le monde fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs clairs qui montrent qu'il y a une volonté délibérée de faire le forcing. Je ne vais pas me répéter, la presse, je l'ai dit plusieurs fois. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la presse, c'est c'est de, des dépenses en équipement de dernière génération anti-émeute. de parrainage qui a fini le pays. C'est la question des cartes électorales. On ne à ces élections sans régler cette question fondamentale des cartes électorales, a eu des élections calamiteuses après avoir dépensé 52 que plus d'un million de Sénégalais n'avaient Aujourd'hui, nous n'avons aucune information sérieuse, aucun monitoring montrant que cette situation a changé. Comment peut-on aller aux élections question Ce n'est pas possible. c'est une question fondamentale. Et c'est une question de démocratie élémentaire. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays qu'on des élections, que certains Sénégalais aient des cartes et que d'autres n'en aient pas. C'est contraire à la Constitution. Tous les Sénégalais sont égaux en droit. C'est contraire à la Constitution. Ce pas une question élémentaire de X ou Y qui n'a pas reçu sa carte, qui court derrière sa carte. pas ça. C'est une question de respect de dispositions constitutionnelles. Et on ne peut pas concevoir une démocratie sans que les Sénégalais, sans que les citoyens puissent exercer ce droit fondamental, élémentaire, qui est On nous donne l'occasion chaque cinq années de choisir nos dirigeants C'est un droit fondamental. Comment un État sérieux peut, avec cette légèreté, admettre que des Sénégalais n'aient pas leur carte et être sélectif dans la, dans la distribution des cartes Parce qu'on n'est pas naïf, on sait très bien que dans les régions supposées favorables aux candidats sortants, aucun problème, taux de distribution maximum. Dans les régions supposés peu favorables au président, les taux sont les plus bas. Par exemple, Dakar. Et quel paradoxe, parce que si on fait les cartes Dakar, théoriquement, il est beaucoup plus de distribuer à Dakar. Par contre, c'est à Madame où on a les taux les plus élevés. Madame qui a je ne sais plus combien centaines de kilomètres de Dakar. C'est juste un exemple. c'est une question fondamentale. Une autre question sur laquelle aussi il ne peut pas y avoir de négociation parce que c'est un droit. La question du fichier électoral. On nous a vendu une loi électorale, une loi de modification du code électoral sur le parrainage. La règle dit qu'il faut avoir le parrainage d'un nombre d'électeurs inscrits correspondant à à du fichier électoral. Donc la corrélation n'est même pas discutable. C'est-à-dire qu'au moment où on parle de parrainage, le fichier doit être disponible. Et c'est une question aussi d'équité. Pendant qu'on prive les, candidats d'opposition du fichier électoral, le candidat sortant lui dispose du fichier électoral. Mais en dehors de ça, c'est une question juridique. On ne peut pas dire du fichier électoral et que ce fichier ne soit pas accessible au moment où le parrainage se joue. C'est inconcevable. Alors, on a une réponse du ministre qui dit que, en vertu de l'article 11 du Code électoral, le fichier sera mis à la disposition des candidats 15 jours avant l'élection. L'article 11, son libellé est très simple. le libellé le libellé de l'article 11, c'est de dire que le fichier électoral doit être à la disposition des candidats 15 jours au moins. 15 jours au moins. Ça veut dire qu'on peut parfaitement mettre à la disposition de toute personne aujourd'hui le fichier électoral. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que l'argument de l'Intérieur n'est pas recevable juridiquement. Parce que l'article 11, effectivement, est une disposition spécifique concernant l'élection présidentielle. Mais il y a un article plus pertinent. C'est l'article 48 du la Sénat, ainsi que les partis politiques légalement constitués, ont droit de regard et de C'est un droit permanent. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour suggérer à l'ensemble des partis politiques de saisir officiellement le ministre de l'Intérieur sur le fondement de l'article 40 pour demander l'accès au Et voir la réaction du de l'Intérieur. Et nous prendrons soin au moment opportun, quand on aura fini de mettre en place la plateforme, d'interpeller la Sénat. Parce que l'accès au fichier électoral est une partie du processus électoral que la Sénat est chargée de soutenir. Donc, aujourd'hui, nous venons faire cette démarche pour proposer la mise en place de la plateforme opérationnelle. Parce que nous voulons simplement apporter une contribution complémentaire à ce qui se fait Nous savons très bien qu'il y a des coalitions qui font un formidable travail politique. Mais il nous semble nécessaire aujourd'hui de faire un travail de gestion opérationnelle de risque. Une démarche opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime qui a réfléchi, qui a mis en place une stratégie avec un objectif déterminé. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. On doit faire la même chose c'est-à-dire faire dans l'anticipation, engager la réflexion, considérer la situation, analyser ce qu'ils ont mis en place, pousser la réflexion stratégique pour trouver les moyens de neutraliser les risques identifiés. Mais en s'y prenant à temps et de manière opérationnelle, parce que c'est des questions techniques. C'est pour ça que, cette plateforme, nous la voulons une plateforme experte. Parce que quelle soit la volonté, dites-nous de l'expertise, c'est de l'expertise. Aujourd'hui, quand on parle d'expertise électorale, c'est un savoir-faire. Ce pas une question de bonne volonté. Quand vous parlez de, de, en système d'information, ce pas une question de bonne volonté, c'est un savoir-faire. À ce niveau, par exemple, un jeune Sénégalais, pour vous donner l'exemple de l'engagement des citoyens de ce pays, quand il a entendu le projet que j'ai lancé, de Paris, il m'a contacté en disant qu'il est frustré parce qu'il a, l'a Et il est en train de travailler sur une plateforme de recensement de tous les Sénégalais qui ne sont pas inscrits. Parce que les manquements du pouvoir, il faut qu'on les documente. Aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens techniques et technologiques d'établir le nombre exact de Sénégalais qui, se sont inscrits et qui n'ont pas le cas. C'est un chiffre très significatif. Il ne suffit pas juste de dire Sénégalais, Sénégalais, il a du travail à faire. Donc ça, c'est aussi du savoir-faire de s'organiser pour que la plateforme qu'on va en place ait un maillage national. C'est aussi un savoir-faire logistique et organisationnel pour que le jour du vote, qu'il y ait des des candidats de l'opposition dans tous les bureaux de vote du Sénégal. C'est ça les enjeux. Ce pas juste des, de, de la théorie, de la bonne volonté. C'est du travail sérieux, organisé, structuré et opérationnel. Nous n'avons pas l'intention sur cette plateforme de concurrencer qui que ce soit. Nous voulons apporter une contribution. C'est une simple question de division du travail. C'est une question qu'il faut prendre en charge à temps plein avec une plateforme constituée de profils experts qui complète le travail politique. Ça doit être fait aussi. C'est un travail important, un travail politique de terrain. Voilà les questions que j'étais venu discuter avec Et j'ai rencontré une oreille très attentive, attentive. Je pas moins. Et je suis heureux de vous informer, de vous annoncer que le président Malikelia nous a marqué son accord et l'accord de son mouvement pour être partie prenante. Parce que je le dis, c'est très important. La plateforme n'est pas encore consultée. C'est une simple idée de projet. La prochaine étape, et je peux même l'annoncer,

Ça, c'est très important. Et nous n'avons aucune prétention. Cette démarche est une démarche très humble et qui respecte parfaitement tous les acteurs du jeu politique. Certains, j'ai vu certains journalistes commencer à dire oh, il, se prend pour le, chef de l'opposition. Je n'ai absolument pas cette prétention. Moi, je suis pas, un, homme politique comme Ce que je fais là s'inscrit dans une logique très claire dans ma trajectoire. c'est depuis deux, 1999. Même 1996, parce que le combat sur la, la, la, la possibilité pour les candidats indépendants de participer le pont pour les intérêts citoyens. Nous avons joué ce rôle en 1996, en en 2000, en 2012. C'est ce combat qui Donc c'est en droite ligne de ce que nous avons toujours fait. Donc nous invitons l'ensemble des citoyens sénégalais à considérer que ce combat-là, c'est le combat de chaque citoyen, ce pas une affaire de candidat. Même si les candidats ont un important à jouer. Et cette plateforme, je l'annonce aussi, est une plateforme qui est totalement transversale. Au-delà des candidats, c'est des partis politiques, c'est des organisations la société civile, c'est beaucoup Mais comme je lui disais, chaque fois qu'on donne à un avocat la parole, c'est toujours un programme. Merci de d'abord saluer la présence de mon frère et ami, Maître Mam Adam Gueye. Et lui souhaiter la bienvenue dans notre quartier général. C'est la première manifestation qui a cours dans ce quartier général. Chers frères et amis, c'est au nom de la coalition juillet 2019. Je vous souhaite la bienvenue. Je me permettrai seulement de citer quelques personnes. Les autres comprendront qu'on ne peut pas se permettre de citer tout le monde. Je citerai mon frère et ami, mon frère de parti, le Duc Yohamar. Madame la ministre Aminata Lô présidente d'Appel 3G je citerai Ndella Madior Diouf président ou secrétaire secrétaire général du parti de la réconciliation nationale Djibi Diop secrétaire général du parti donc du Front républicain Ndiaga Fall secrétaire général du parti de la solidarité active mais comme j'ai eu à le faire avec Ibrahima Diouf Ndakha Baye je citerai un autre membre de ma coalition Amadou Diarra de Pikine Nord merci pour les autres merci Serigne Cheikh et tous les autres qui sont autour de la table Je voudrais aussi saluer la délégation qui accompagne mon frère, mon frère Adam Maître, Mme Je vous salue je vous souhaite la bienvenue. L'activité que nous déroulons est si importante que je n'ai pas hésité à demander à notre intendant général Albori de tout faire que nous puissions la tenir

de mon frère et ami, nos routes se sont un acte solennel qui nous a permis de devenir avocats le 16 juillet 1982. Autant d'autres choses nous lient. Tout à l'heure, je lui que j'étais très attaché à son père. Régulièrement, je lui à la rue pour aller recueillir ses prières. une très grande générosité que le universel couvre J'ai été aussi ministre de la Justice au moment il était bâtonnier de l'ordre des avocats. Deux personnes de la même promotion. L'un, donc, ministre de la Justice, l'autre, bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est pourquoi les réformes les plus importantes qui ont concerné la justice ont eu lieu alors qu'il était bâtonnier, alors que j'étais ministre la Justice. Je voudrais aussi souligner son sens élevé du patriotisme. Il aurait pu dire, j'ai renoncé à ma candidature, je vais aller soutenir un candidat. Se retrouver d'un bord. Mais ce qui l'intéresse, c'est le port vers lequel nous voulons tous nous Un Sénégal dans lequel la démocratie est une réalité forte de tous les jours. C'est pourquoi on je n'ai pas le droit de croiser les bras. Le risque vers lequel on va amener ce pays, il est grave et il est si important que tous les Sénégalais doivent tous lever pour dire non à ce régime dictateur du président Macky Sall. Mais madame, merci. Son acte a une fonction importante. Elle participe à l'éveil des consciences, mais aussi à réveiller beaucoup de Sénégalais qui voulaient se réfugier derrière la situation du fait accompli dans lequel nous, vers lequel nous amène toujours le régime en place. Tous aujourd'hui auront conscience qu'ils ont le devoir de se lever et de lutter contre cette dictature qui nous dirige. Il a raison de souligner que depuis c'est la première fois, je l'ai dit et répété, que les règles, les règles du jeu électoral, à quelques encablures de ces élections, ne sont pas acceptées de tous les acteurs. Seul un bord se permet de nous imposer sa volonté et de rester sourd et muet à tout ce que entreprendre l'opposition. Ça ne s'est jamais passé. Ni avec le président Abdou, ni avec le président Ouad. C'est inacceptable. Donc on nous un ministre qui a déclaré devant tout le monde je veux faire gagner mon parti. S'il ne l'avait pas dit, nous ne sommes pas nous avons tous conscience que sa présence là c'est de faire gagner son parti, de faire gagner son président. aujourd'hui, on nous a imposé le parrainage. Vous la bataille farouche que nous avons menée à l'Assemblée nationale. Et le parrainage n'est qu'un piège dans lequel on a installé l'opposition. D'abord, avant d'en arriver à l'élection présidentielle, toutes nos forces seront consommées par le parrainage, sur le plan financier, sur le plan matériel. Mais surtout, le pouvoir a tout fait pour tarir la source du parrainage mm-hmm. en récupérant les cartes d'identité qui sont des cartes électorales de beaucoup de Sénégalais en leur promettant des financements. Le pouvoir ne s'est pas seulement permis cela, c'est moi pa seulement, vous avez lu ça à travers la presse ou entendu tout cela dans les, dans les réseaux sociaux. Certains se sont permis d'acheter le parrainage à 50 000 francs, à 20 000 francs, à 30 000 francs. Rappelez-vous ce à Touba. Tout cela pour dire que le parrainage est anticonstitutionnel. Et ils veulent en faire un la lettre. J'avais dénoncé à l'Assemblée nationale que ce parrainage n'avait pas de sens parce qu'il trahissait. On pouvait l'utiliser comme un vote. On pouvait l'utiliser comme un vote pour trahir simplement ce que veulent les Sénégalais. Alors que le vote est secret. Il dit, je vais avoir 2 millions de parrains pour pouvoir justifier demain un passage en force au premier tour. tout cela pour vous dire, d'abord, on, on nous a imposé le parrainage. Maintenant, on nous met dans une situation on veut faire du forcing à tous les niveaux. Je suis d'accord avec ce que vous C'est pourquoi, avec le PDS, nous avions été dans plusieurs initiatives. Gorsa Wahdia, quand Macky Sall a opté pour un remaniement devant le monde entier. De son mandat de 5, il s'est permis aujourd'hui de revenir sur sa parole donnée. Alors le président Obama, dans un séminaire au Kenya, disait on considère que les Africains sont au pouvoir au Sénégal, on a un jeune président qui veut renoncer à deux ans de son mandat. Je suis qu'Obama a dû avoir honte de ce qui s'est fait au Sénégal alors qu'il vantait les mérites de ce président qui est revenu sur sa parole. Nous avons aussi engagé Manko Wattu Sénégal, malheureusement qui n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on attendait. Aujourd'hui, il y a le front de résistance nationale qui lutte âprement contre tout ce qui est entrepris pour réaliser un coup de Nous adhérons totalement à cela. Mais ce que nous propose mon cher frère et ami Mamadama est un plus. C'est une plateforme dans laquelle on trouvera le savoir-faire nécessaire pour pouvoir contrer ce que veut entreprendre Macky J'adhère totalement à cela. Et nous ferons de sorte que tous les autres candidats, tous les autres candidats puissent appuyer cette démarche. Cette démarche est si importante que nous avons l'obligation de la mener je voudrais vous dire ici, c'est une répétition, que le président Macky Sall doit comprendre que la voie de la dignité, ce n'est pas de vouloir réaliser un coup de force. Son honneur, ainsi que celui du Sénégal, ainsi que l'image du Sénégal, doivent l'amener à accepter d'organiser des à et de laisser les Sénégalais décider librement. Nous nous opposerons de toutes nos forces. Que le régime en place comprenne que nous ne nous laisserons pas faire avec les populations, avec toutes les personnes éprises de justice et ayant comme seul objectif la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, nous nous opposerons au dessein du régime en Il faut le faire d'abord sur le plan politique, mobiliser les populations pour s'opposer, mais aussi le faire la manière à laquelle nous invite notre frère et ami Mamadou. Je voudrais ici, devant tout le monde, en tant que candidat, soutenu par la coalition Madické 2019, j'adhère totalement à sa démarche et que je ne m'arrêterai pas seulement à le dire, mais je serai à ses côtés pour partager toutes les batailles à mener pour que la démocratie ne soit pas piétinée par Macky Sall m'arrêterai pas aussi à ce niveau. Je vais être à ses côtés pour faire partager par d'autres candidats cette cause si noble qui nous amène à nous battre pour la démocratie soit une réalité. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre ce que fait ce régime. Après tous les succès enregistrés par la démocratie Après la belle image qui a été celle du Sénégal, nous, voilà sous l'empire d'un joug de dictature inacceptable. Le coup de force a été réalisé par le référendum. On a même voulu créer une situation nouvelle. La situation nouvelle aujourd'hui pose problème. C'est de faire de sorte que les, les les simples avis du Conseil constitutionnel deviennent des décisions, c'est inacceptable. Il y a une différence totale entre avis et décision. Et on lui confère, on confère à ces, à ces, à, à ces avis donc une décision inattaquable. C'est ça qui appelle mon président Macky Sall dire je ne dois pas faire 5 ans, qu'on avait besoin de cet artifice, avec les élections catastrophiques, inacceptables, les élections législatives, c'est un autre coup de force qui a été réalisé. Maintenant, nous ne laisserons pas faire avec ces élections présidentielles. Que les Sénégalais comprennent que nous sommes des gens épris de paix, mais nous ne laisserons personne nous piétiner. Ouais. Nous sommes prêts stratégie. Nous le ferons avec courage, avec abnégation, mais avec dignité. Parce que nous, nous portons en bandoulière les valeurs qui permettent à ce Sénégal de devenir une véritable démocratie. comme ni ko tubaab bi wax rek pour wax parce que lu affaire bi nekk cadre am ko terewul nag euh, ñu bàyyi xel suñu liggéey avocat parce que ñu waat

ñu bokk ci tànk yi ma yëkkati jëme ko ci candidat yi ci élection présidentielle pour waxtaan ak ñoom ci ni ñu gisee élection bi parce que candidat woon naa ni ñoom waaye dama toog nag am xalaat daal su suma coobare yàlla moo ma inspiré daal may xalaat gis ne nekk candidat baax na waaye nag dañu am problème balaa ngay lakkale dama seen loo xam ne buñ ci jógul euh, kii fi nekk danañu def ñuy wax coup force te boobu def campagne bu rafet ak bu neex ci doy te boobu boo xëyee yow ñu ne cinquante quatre pour cent euh, teg force de l'ordre yi tenir en popula en respect les populations boobu euh, béy wéy na. béy kon. bu ñu xoolee situation yi ma ne bu ñu seetloo bu baax dafa ay fee yoo xam ne buñ ko tegee di ko dajalee rek gis ne pexe bu réeréy lañ tëral pour def forcing sélection dama koy fàttali parce que wax naa ko waxaat ko mais yi ba dañuy wax la répétition et pédagogie ah monsieur Diouf moom enseignant di wax di répéter am na solo parce que mbir mee ko laaj enjeu bi dafa rëy moo tax même bu ñu koy baax na parce que li tax moo leen répété sax démarche bi ñuy def ñu bari peut-être dañ dañ am erreur ni ñu koy gisee moo tax ma koy répété dañu seetlu que pré euh, xëy rek ñu ne ah moom internet bi moom foog ñu xoolaat ah internet tey ban urgence am ba ñu xëy rek war xool internet bi lu ko lal lu leer a leer que internet daf leen jëteel internet bi léegi dafa bokk ci jeu démocratique léegi ñëpp a nekk citoyen à temps réel ndax internet te li tax moo am solo gis ngeen Afrique problème bi ñaan mooy ñi ci ëpp jànguñu français te li ñoo liggéey yëpp di ko def ci ay politique yooyu français la léegi soxla woon nga mën français li nga soxla di nga ko wax jaarale ko si internet ñëpp dégg loolu dafa am solo donc internet bi dafa jox sénégalais yi capacité ñu nekk des acteurs du jeu ba pare internet bi réseaux sociaux yi am leneen lu muy indi lu am solo parce que dëkk boo xam ne ñi koy jiitu bu leen neexee média public yi nga xam ne suñu xaalis lañ ko yore ka jaar daf leen di neex léegi internet bu ne nga contourné ko par exemple ne nga da koy neex mu toog vidéo fii dugal ko si réseau yi ñi koy gis sax ñooy ëpp ñuy seetaan RTS parce que moom mënoo forcé kenn mu seetaan RTS donc internet bi réseaux sociaux yi suñu xëy rek bëgg dañ day tey mu war tey lool sax parce que boo téyee internet bi fekk teg nga loxo euh, euh, euh, këru këru këru këru organe information yi yi nga xam ne suñu budget ko fat moo moo moo ko tax mu taxaw muy RTS su nga jël sa benn dirigeant wu parti loolu musu am dirigeant parti direction parti def ko directeur jël dirigeant parti def ko directeur SONE te ñaar yooyu su ñun ñoo koy fay suba ngoon ñuy xalamal ñi fi nekk monsieur madame président madame euh, première dame et cetera suba ngoon te suñu budget la loolu doyatu leen nag parce que loolu bu ñu ci tegee loxo ba pare xam nga mooy li may wax sànq boo téyee RTS sax soleil waaye mënoo ko nit ñi bu ñu xëyee nga forcer ñu seetaan ñu jënd soleil wala ñu seetaan RTS ñu ne loolu doyul parce que nit ñi bu ñu xëyee dem seetaan yeneen chaîne ñu ne nañu fexe ni ñu tegee loxo si yeneen chaîne jël seen benn nit boo xam ne nangul la leen lépp muy Babacar Dia ñu def ko président CN CR CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel kuréel boo xam ne dafa am sañ-sañu teg ay daan média privé kon ne sax mu tëj la loolu muñ ko defee te jëm si élection xel war a gën a ci tey mooy téye réseaux sociaux yi téye média public yi bundu xataal média privé beneen indicateur bu am solo dama koy répété waat wax naa ko waxaat naa ko waaye yàq dara ñu répété tey ñëpp xam nañ ne suñu trésor bi dafa am ay jafe-jafe entreprise yi ñu ameel xaalis ñu ngi fi ñeent fukki junni étudiants ñu ngi ci mbedd bi ndaxte état bi dafa am alal ay université fayu leen terewul ñu jël suñu alal dem jënd ci ay ay ay gànnaay yu ñu waxee équipement anti émeute yu yu takkul am nañu si jot gis sax def defal nañu ci lancement ba muy dem di inaugurer pavillon université nit ñi gis nañu équipement ya fa ya fa taxawoon ku nar jàmm looy doyee équipement anti émeute ñun Sénégal dëkku jàmm ku nar jàmm soxla woon équipement anti émeute un président qui est à côté de son peuple un président qui respecte les règles soxlawuloo arme anti émeute Sénégal amuñu problème Sénégalais amul jafe-jafe donc loolu dafa am nu mu tekki booy pare lu jubul da ngay teg sa jumtuwaay pour ne ku jóg ko dóor loolu moo indi ak manté leneen ba ci fax taxaw tuuti rek ci àll ci wàll suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la yoon ñoom la ñoom ñoom ñoo am ñooy diriger force de sécurité dama leen bëgg wax tuuti rek sàkku si ñoom xam ne c'est des enfants du peuple allégeance ñu ngi ko ils doivent l'allégeance à la république allégeance jébbalu république lañ ko a defal ils ne doivent pas l'allégeance au pouvoir en place kon bu ñu def loolu jaaduwul bu ñu leen def loolu jaaduwul utilisation de la force légitimité mu ngi reposer ci état de droit ci yoon kon dama leen di ñaax rek ñoom dañ bàyyi xel lool dañ bàyyi xel ci lool dañu am une responsabilité républicaine loolu la ñu xaar ci ñoom bu ñu topp intérêt benn candidat ba def fi lu ñu warul def te ñoom ay boroom xam-xam lañ xam nañ tey léegi loolu bu ko def tamit ka nga koy defal ah boobu mooy tuul bés booy am problème du ko fekk du du du ko fekkee léegi organisation internationale yëpp dañu teg bët si bët yëpp ku yor force de sécurité def ci loo warul def ah euh, bu dul sa loi wu dëkk loi internationale mën na la topp donc loolu tamit dañ koy wax ak ñoom rek dans le plus grand respect ñu xam ne ñoom c'est des fils du peuple ils la l'allégeance à la République Ils doivent la loyauté au pouvoir. Mais la loyauté au pouvoir, c'est si le pouvoir respecte la loi. loolu moom mënoo ko woon wax tuuti rek parrainage bi moom wax nañ ko waxaat ko léegi waxatuñu parrainage sax pour natt peese candidat yi léegi ñoom dañ ko def pour peesante seen biir parti pouvoir bi responsable bu nekk ngi wuti parrainage pour wane dooleem candidat lépp moo tax yàq nañ dëkk bi ak corruption bi guerre bi ndax nit ñi jël seen carte di leen di leen ay financement yoo xam ne amul ak yeneen ak yeneen comme ni ko président bi di ko wax def ko volontairement pour candidat yi seen seen seen moyen seen énergie yëpp ñu dépensé ko ci loolu loolu tamit dafa am lu tax mu jóg carte yi nag électeurs yi moom moom mooy moom loolu nag mooy mooy aari kale moom Sénégal yi nañu yeew bu baax a baax a baax loolu kenn mënul négocier ñu jël suñu cinquante deux milliards ñu dem élection législative mënuñu joxe carte yi ba léegi question bu rek wu waruñu mën dem élection te amuñu firnde bu que sénégalais bépp sénégalais bu am droit jot sa carte jot ma ko ba war a mën a voter parce que droit de vote mooy droit bi gën a élémentaire ci démocratie kon ñun sénégalais yi waruñu seetaan que ñu war dem si élection te question carte yooyu réglé wu te ñoom nag seen disposition yi ñu war a jël pour ñi nga xam ne yaakaar nañ ne dañ leen voteel ñoom jot nañ seen carte ñoom ministre de loolu leer la wax danañ def seen kenn lay kattan pour que seen carte seen kii seen militant yi jot seen carte inscrire jot seen carte mën a voté te boo seetloo wàllu bi réew mi nga xam ne ñoom yaakaar nañ foofu am nañ fa doole ñu war jot carte yëpp jot nañ wàllu réew mi nga xam ne yaakaaruñu ne am nañ fa doole foofu moom ñu warul jot seen carte ñu war jot seen carte jotu Dakar boo ko seetloo muy Diourbel Touba ak région de Thiès comme par hasard foofu carte yi joxewuñ ko xam nañ ko war a joxe te pourtant Dakar bi dañu defar carte yi di jox fi carte yi war na yombal lool waaye nag loolu dafa am lu ma laal fichier électoral bi laay mujj dañu def loo parrainage loi parrainage bi wax lu leer ne parrainage bi foog nga am lii mu ay électeurs inscrits du yem si zéro virgule huit ba un pour cent du fichier électoral ñoom ñoo ko bind kenn forcé wu leen fichier électoral naka ngay mënee natt loolu xam ki day parrainé am inscrit na ou pas te fichier mënoo si jot te li gën a garaaw mooy mbir mi dafa jubul fichier électoral ñu ngi koy xañ yeneen candidat yi waaye moom candidat sortant moom loolu fu ñu ko teg te candidats yëpp ils sont égaux en droit ñoo war a ba pare boo laajee ne article onze ne na fukki fan juróom avant élection bi la si candidat yi war a jot ni ñu interpréter texte boobu jaaduwul parce que loi bi dafa ne lu yées lu yées fukki fan juróom candidat yi war nañ jot lu yées maanaam tey mën nañ ko joxe. mais joxewuñ ko parce que lii fii pré mag du ma wax président parce que kii jëf yi jëfu candidat li candidat Macky Sall def bu pour la première fois ñu jëm élection te déggoo amul consensus amul Abdou Diouf nangu na consensus Ablaye Wade nangu na consensus loolu mooy Sénégal plus waxtaan diisoo déggoo ci dara dem élection jàmm Macky Sall nag loolu déggewu ko noonu moom bëgg-bëggam la jiital donc dafa bëgg a def forcing buggul waxtaan buggul déggoo daf ñu bëgg a forcer la main ci fichier électoral boobu article bi ñu wax du article bañ war a appliquer am na beneen article muy article 48 bu dee parti politique yi ak Sénat dañu mën a war a jot waxtu bu ñu ko soxlawee ci fichier électoral moo tax maa ngi ñaax dama koy xalaat la rek bu may bu may bu may suggéré parti Sénégal yëpp di nekk ci opposition bi dama leen di xelal ñu def demande officielle d' accès officiel électoral adressé au ministre de ba xamul muy tontu mu tontu bañ muy doon base juridique mu bañ a tontu dans le délai base te base boobu dina tax ñu mën a interpeller Sénat bi nga xam ne moom dafa war a saytu mbirum élection donc loolu yëpp boo ko boolee mooy kii fi nekk. bëgg na se faire reconduire à tout prix bañ na ko ba ne moom dee sax moo gën a bañ a bañ a amaat deuxième mandat kon loolu ñun mënuñu ko seetaan parce que ñun bu question ñun jotee ñu wax moom Sénégal moo ñu itteel kii du affaire personne bu fekkee ne bëgg-bëggam méngoowul ak intérêt Sénégal duñ ko nangu on est des citoyens du Sénégal dañu défendre élection bi moo tax moo koy wax mun na leer du affaire candidat. affaire u sauvegarde démocratie Sénégal Macky Sall gëmul démocratie ni tubaab bi wax nekkul ci deretam c'est pas dans son ADN gëmul état de droit ñu nag du nangu ak kii yi nga xam ne xeex nañ ko ba fii ba démocratie sax ba ñuy tudd Sénégal muy wayu Sénégal ci àdduna bi moom mu ñëw ci bëgg-bëggam rek ñu remettre en question ak yooyu kooku mënuñu ko nangu benn sénégalais waru ko nangu démocratie bi c'est un patrimoine national bu affaire candidat c'est patrimoine national te li tax mu am solo démocratie mooy tax élection transparente mën a am élection transparente mooy tax jàmm am jàmm nag du affaire u candidat jàmm intérêt Sénégal yëpp la jàmm bu amul ñun ñëpp kenn du am kenn kenn kenn du du daal dana ma koy répété richesse su Sénégal alalu Sénégal du pétrole bi fii ñu toll ci Afrique fii alalu Sénégal c'est pas le pétrole alalu Sénégal mooy jàmmam saa waaye nag ni bëgg a def bu ko defee dina jafe jàmm am loolu nag bu ñu toog ba mu dal ñu ñuy dalee li mu tëral xalaat ko moom ci ay pexeem yu baaxul pour am li mu bëgg muy intérêt boppam ak ay ñoñam pas intérêt Sénégal ëpp ñu xel ëpp ñu xalaat ëpp ñu xam-xam ba ñun tamit ñu mën a anticiper li mu ñu bëgg a defal ñu xalaat lu ko baare ba du am mën nañ loolu moo tax ñun ñu tey Kande proposé leen plateforme boobu plateforme boobu remplacé wul coalition yi fi nekk de li tubaab division du travail la ñu ñi jàpp wàll wii ñi jàpp wàll wee wàll wii politique yi xam nañ ko ñooñu gën a xam fuuf benn wàll bi nag ay affaire borom xam-xam la ak technique ak expertise loolu la ñu proposé mu doon li ñuy wax sax une forme de bras technique ñun concurrencé wuñu kenn amuñu benn prétention xëccoowuñu dara mais daal gëm nañ ne te li may wax nii moo ko waxee ñu mën koo gëm parce que taxaw affaire démocratie Sénégal élection kat deux mille deux mille dix neuf taxut jubaluma ci de loolu laa mës a def ñaar fukki at ak juróom combat pour la démocratie au Sénégal xeex nañ ko ñëpp xeex nañ ko contre Abdou Diouf xeex nañ ko contre Abdoulaye Wade dinañ ko xeex contre Macky Sall du doit faire personnel question de principe donc combat bi c'est un combat pour la démocratie moo tax ma du man ma dugal ci suma loxo dans ces conditions mais du benn prétention compréhension wu ma kenn dana comprendre personne dégg naa nag ñenn ñi xam ngeen presse moom léegi dafa am ci xawal la ndëmas tuur ñoo xam ne xëy nañ naan waa yéen bën borom parti yaa ñàkk a fay da ngeen bàyyi maam Adama Gueye mu naan dama leen jiitu xaw ma lan jiitu ma kenn laa ji ku nekk ak sa liggéey ñun li ñu bëgg a apporter daal te alhamdulilah rabbi alamin ni ñu ko waxtaanee ni ñu ko seqal ñu doon très bien compris ñun jiitu ñu on n'est pas porté en garde leneen mais yaakaar nañ ne ci liggéey bi boo ko tënkee nii am na benn wàll boo xam ne foog ñu jël ko en charge à temps plein nga xam ne ñi koy toppatoo loolu rek la ñu campagne yu ñu ñu terrain bi loolu rek la ñu toppatoo loolu mooy plateforme sécurisation opérationnelle de sécurisation du processus électoral nga xam ne mooy mbirum xam-xam ñu jaarale ko ci ay actions opérationnelles ba pare nag. tënk ko ci lu ñu am mutualisation boole doole parce que coow li yëpp nañ ko wax lu leer de liggéey bi bu ñu fexewul ba bésu élection yi bureau Sénégal yëpp mu am fu ñu représenté opposition gars yi nañu ko def affaire liggéey boobu nag liggéey bu difficile la bu technique la loolu lañ ñun proposé seet naka lañ koy tëralee teel si jóg pour que carte yi ñu réglé ko yeneen question yi ñu réglé ko te bésu élection bi ñëw fépp fu bureau vote am moom représentant wu candidat opposition yi élection yi jaar ci jàmm élection yi jaar ci yoon senegal am jàmm loolu rek édition ma di que 2019 si sama qualité de candidat à l'élection présidentielle de 2019 ma dalal maam Adama ak ñi mu àndal maam Adama wax na leen li nu bokk dafa bëri yamul fii ba mu àndee ba tey man na fanweeri at wala jëm ñeent fukki at mu yàgg ñu ñu yàgg ñu yàgg ak lu bëri dox suñu diggante yàlla def na sax bi ma fi nekkee ministre de justice moom moo doon bâtonnier yàlla dimbali ñu réforme yu bëri man ak moom ñoo ko jëmale kanam ba tey justice waroon man tegu si yoon waaye nag ñi nga xam ni nu dugal seen loxo mu xajam xajamal nañu justice ba justice ñi ngee jooy metti yàlla dimbali nañu ñu am si xam-xam bu bari suñu yàlla mayee ndam daanu faj rangoo justice fexe ba justice bu wóor am si dëgg maa ngi fàttali rek ni li ma wax gëm que mooy président de la république moom waratul jiite conseil supérieur de la amee palais pouvoir di fekki pouvoir président jiite que loolu jaar bokk na si réforme yi may proposé ak yeneen yeneen yoo xam ne daan ko dégg sama déclaration de candidature maam Adama li ma ñëw di ma bëgg ma dugal sama loxo dama si ànd bu baax a baax ma ak sama coalition bi ma àndal yépp li mu bëgg mooy na yëf yi leer doo wax nag ni yam rek di wax diw dafa bëgg muy leer da fexe ba lépp loo xam ni war na ci xeex war na ci taxawaay pour lépp leer nga def ci sa kemtulaay kàttan ba dara du ci man ba nu fi folee Macky ba tey dafay jëmale réew mi gannaaw Sénégal amul benn domaine boo xam ni dellu ci gannaaw li gën a garaaw nag sama doomu ndey sama xarit maître maam Adama wax na mooy si wàllu démocratie li gën a garaaw mooy dafa delloo démocratie gannaaw Abdou Diouf bi mu ñëwee def na code consensuel de 1992 ñu organiser ay élection yoo xam ni amul werante bañ na ba lu commission ba proposé dañ fay dem ñu voté ko à l'Assemblée nationale sans sans débat mu adopté que nan ko bëggee laay Wade bi mu ñëwee mu def loolu président Macky Sall bi nga xam ni la ab Ablaye Wade ak Abdou Diouf defoon moo tax mu folu suñ defoon na moom du folu mukk mu ñëw ni ah kon dañuy def nañu liy ñàkk nguur dama nguur gi sama bakkan laa si teg damay def leneen loo xam ni du ma ñàkk nguur gi loolu rek mooy li ko euh, li ko ñor loolu nag duñ nangu démocratie alalu senegal la loolu la maam Adama di dox si mënoon na wax ni nekkatuma candidat dem jàppale candidat bu ko neex mais li moo dox si mooy ñoo bokk benn alal boo xam ni kenn mënu ko séddoo li mu wax dëgg la man nekkoon naa ministre des affaires étrangères Sénégal du or bi ak pétrole lan ka nawee am na réew yu nu ko ëpp téeméeri yoon te kenn tegu leen fenn lan la nawee mooy suñu démocratie lan la ñu nawee mooy stabilité bi am si réew mi président Macky Sall ak régime am ñoo bëgg yàq loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñu yam si wax ci nañ ko jëfe opposition bi def na si kemtulaay kàttanam nu continuer def ko si biir initiative gor sa wax ja bi mu weddee doom koo xam ne àddina bi yëpp dañ ko doon bàkkoo ni am na président boo xam ne na dana bàyyi ñaari atu mandat rawatina président Obama moom mu ñëw wetti kàddoom Sénégal yëpp rus booba créé nañu gor sa wax mu jël référendum bi sàcc yëf yi def na mu ko neexee buure urne wax ni référendum bi moom majoritaire fexe ba jàllale ba adopté règle yi nga xam ne moom la adopté élection législative bi nag li am si élection législative gëñ na am si élection 1996 te booba sax Abdou Diouf moo ko gënoon am fit moo ko gënoon dëggu si jëmale démocratie kanam parce que organiser war na ay vote si Ndakaaru <coughs> bi bu xamee ni am na Sénégal yu bëri yoo xam ne voté wuñu dana jël organiser waat beneen vote si biir waaye moom mi ni maa dégg du dégg kenn damay jël résultat yu catastrophique yi Sénégalais yu bëri voté wul un tiers des Sénégalais voté wul jotuñu seen carte électeur ba pare nag ñu jëm si nag si élection présidentielle ak mu bëgg def lu gën a garaawati te nu parrainage bi du dara lu dul sonnal opposition bi néewal leen doole ba nga xam ni moom su ñëwee nam ka neexee lay xam ni parrainage bi ak alal ndax ñuy pare dañu foog ñu am moyen matériel dem si terrain bi dépense but ay oto lu que dépense ay essence ñoom nag ñu ñëw sax def lu gën a ñaaw mooy jënd Sénégal yi wala jël seen carte d'identité dig leen loo xam ne duñ ko def ni leen dama leen defal financement pour que opposition bi bañ am ay pare billahi wallahi taala lii moo ñaaw ñaaw téef rek la dëkke jot na nag mu xam ni moom li ko jotoon si nguur gi warul def lu yées loolu moom daal moo tax dama koy woor si loo xam ne nit ki kat di ko wër gënal si àddina mooy sa dignité ak sa honneur honneur am ak dignité mooy warul def lu yées la Abdou Diouf defoon warul def lu yées Ablaye Wade dafa war def sax ko ëpp ndax démocratie day dem kanam moom bëgg a delloo gannaaw duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu ñu ñu bëgg jàmm Sénégal lañu yéene jàmm Sénégal lañu waaye nag suñu fula mayunu ñu bëgg nu xañ suñu yeneen gis ngeen la xew assemblée nationale ñaaw téef la daaw lu nu dundee ñaaw téef ak jaay doole rek fa am léppam jaay doole la ak ñaaw téef jot na nag sénégalais yëpp jub ànd si li Adama bëgg ñu boole seeg front de résistance nationale ñu ñëpp waa ëpp ñi candidat yëpp ñu jug taxaw pour ñaaw ñaaw téeg boobu bañ am si Sénégal ndax kan Macky Sall dafa war xam lenn d'abord yàlla moo ko ëpp doole mhm. te yàlla suy dogal kenn mënu si dara Ablaye wax dëgg ëppoon doole téeméer yoon Ablaye na mu nekkoon si xolu Sénégalais yi moom soo setee pépp suuf ba nekk ko si biir xolu Sénégalais yi ndax fitna la leen indil ba mu fi nekk <laughs> tëj kaso jaay doole xañ leen seen yelleef booleeg nag réew mi moom ku añ doo reer ku ndékki doo añ toroxal jigéen ñépp nag kon Ablaye ba yàlla indee dogal ba daf ko nangu moom nag bu mu yaakaar ni mën na rëcc si dogalu yàlla lu rëcc si dogalu yàlla te yàlla dana nu may ay pexe yu mag yoo xam ni ñu daanu fexe ba bëgg du ko am jaay nu doole ba toogaat bi du fi am incha allah su neexee yàlla du fi am nañ ko gëm nag bu kenn nangu nii moom am dem na jël armée bi jël na police jox na leen ay jumtukaay nangam ak nangam yooyu suñ ko gëmee ba téye suñu loxo billaahi suba daal rus ndax boobu defuñu suñ devoir en tant que sénégalais te boobu ñu ñooy néewal doole Sénégal noonu jug taxaw xeex lii Macky Sall la joxe fichier bi Macky Sall na fa jële ministre bi Macky Sall na toog ak ñun ñu d'accord Sénégal yi nga xam ne moo jëm mësul am nee naa leen Sénégal ba mu amee ba tey mësul am ñuy dem élection te d'accord lu ñu ñëpp ci règle yi moom règle boppam rek lay yeewu rek xalaatal ko boppam te règle yooyu yëpp dara lalu ko lu nu mu sàcc élection yi ak nan la fi toog duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg looloo tax ma dalal sama doomu day maam Adama ba pare comprendre li mu bëgg mooy li front de résistance nationale di def moom daf ko si war man jàppale bu baax parce que li moo dajale day doon xam-xam bu xarañ boo xam ni lépp loo xam ni pexe ñoom pakke tu pexe la nu nitu pexe nag borom pexe lenn ngay naxasal pexeem dañ koy ëpp xam-xam ëpp ka xalaat ba pexe bu mu def yow daa def pexe bu ko raw ba pexeem du man àgg fenn lii lay dox si ñu ànd si ñu ànd si nee naa la ànduma si rek ni la ànd naa si si kàddu danaa si ànd si jëf sa côté danaa si ànd pour dem propagande képp koo xam ni war na dugal si loxom si lii pour ko ñu jug taxaw il faut ñu xeex si terrain politique bi il faut ñu xeex si xam-xam bi il faut ñu xeex fépp ba ndam am Sénégal parce que Macky Sall ñëpp la bëgg yeew si benn bopp ñëpp la bëgg bëgg yeew opposition bi kenn du wax. li mu tëj kenn benn président même du temps de Senghor bi parti unique amee li mu tëj say opposant kenn mësu ko tëj waaw kenn mësu ko tëj waxuma Abdou Diouf waaye moom Senghor rek ba nga xam ni parti unique nga amoon li mu tëj si opposant kenn mësu ko tëj bëgg yeew justice justice da leen yeew ba nga xam ni justice lu Macky bëgg rek la noo def ñenn si magistrat yi am na ñoo xam ne nag ñu ngee bañ ñooñ di bañ maa ngi leen ñaan ñu continuer bañ ñu ñu daan nangu ñu fexe ba bañ nangu ba ñu xam ni justice dafa war bañ jëfe lu yoon wax yow ñëpp ana Sénat ana ñeneen ak ñeneen ñëpp nag ñu bëgg leen yow ba mu def li mu bëgg dafa jaaduwul loolu jug ni ñoo bañ ñoo lànk te daanu def tout ba nag du ñu yam si ñoo bañ ñoo lànk danoo taxaw ba mu bañ fi amee lii mooy sama taxawaay lii mooy sama taxawaay coalition te di xam la ñëpp ni ñun suñu bëgg-bëgg mooy tey sénégalais métti yi leen Macky Sall teg métti na foo laal nit ni un un gu métti goo xam ni soo amee yërmande daa tegg nag waaye ki ñàkk na yërmande dafa jógee waaye dafa jógee sommes largement exprimés et que nous avons d'autres contraintes, si vous le permettez, sauf si vous avez vraiment une question particulière qui n'a pas été abordée. On est à vos écoutes, mais on aurait pu vraiment se contenter des déclarations que nous avons voulu détailler. C'est bon. Merci à tous. Et pas d'interview. Pas d'interview. Contentez-vous. accompagné de mains historiques. Merci maman. La bataille humaine suffit à me parler. Merci. téléphone bàyyoo ko fii sa téléphone bàyyoo ko fee débalancé ko nga indi ko yu fi bi indi ko waaw. boîte bi. ça va. ça va. maa dana leer. ah dana leer. macha allah leer na nañu ko yaa ngi direct de. waaw yéen a ngi yéen a ngi waaw parce que Fass la Fass présidence PDS. waaw man dama ñaan ñëpp jël naa leen. grand ça va. waay ça va sant bu baax. ana ana daam. da nga ko bëggoon da ko bëggoon jël xanaa waa Dakaractu. waaw waaw Alioune Ndeye la. Ndeye moo xam moom laa àndal.

ñu ngi waaj a dem de day nii ah la yàlla man man ak saa la mu ngi ci biir waaw mu ngi waaj mi ngi ci biir. ah waaw gis ngeen nag gisaguñu ko mais ah moom lay xool moom mi ngi moom Ibrahima. waaw Ousmane waaw waroon na ñëw dafa waroon a.

tellement. Ça coûte très cher de temps en temps. On charge plusieurs tonnes. Non, non, non, mais aujourd'hui, euh, créer ce public de créer. Personne. ñu dem ah yaa ngi koy gis ah

que je suis forte. Je suis venue renforcer une tradition encore forte. Comme ça, ensemble, on peut gagner facilement la présidentielle. Euh, euh, dama commencé candidature bi ndax du gàcce donc dama ko def ndax euh, candidat candidat yi su ngeen jël en charge dafay cher trop si trésor benn benn candidat rek à peu près cent cinquante mille trésor public bu dépensé euh, par contre élection législative bi parce que say quarante séance ay nga xalaat ñu dajale les potentiels candidats créer des coalitions yu am doole nga xam ne mën nañu faire face ak candidat de benn bopp yaakaar moo tax euh, bu ma waxtaanee ñu bëri parce que même état bi sax woon na ma mais bu ma waxtaanee ñëpp ma choisir Madické ma choisir Madické Niang parce que c'est l'homme de rupture de la réconciliation maanaam moom su fa dina dooleel jigéen autant de femmes que d'hommes maanaam fu góor taxaw rek jigéen bi dafa taxaw si biir gouvernement su fekkee trente ministre fukki ak euh, juróomi ministre jigéen mooy dafa nekk mooy mooy moo gën a tax dooleel coalition Madické 2019 ndax jigéen ñi dañ leen war a dañ leen war a dooleel Sénégal cadre jigéen bi bëri publicité fàtte leen kon ba da def tour opposition bi pour waxtaan ku nekk xool. ban moo ban moo bay waxtaan ak Cissé waxtaan euh, ma daw donc euh, waxtaan ak yeneen candidat mujj bi ba nekk bu ma ma nekk su condition nangu naa kon ñenn ñi nanguwul ñenn ñi daal dañuy doon xaw a hésité waaye Madické moo ko nangu sans hésiter sans hésiter ma dox mu daal. ça on peut le dire en français euh, donc vous avez fait le tour des autres candidats pour voir euh, quel est le candidat vous avez fait j'ai fait le tour en faisant le tour des candidats euh, je ne vais même pas dire que j'ai fait le tour des candidats les autres candidats ont fait appel à moi pour que je les soutienne donc j'ai vu يعمل بين غصن ورزق الغصن m'a reçu et d'autres également voilà, ils sont nombreux donc euh, de, de, de, de, de, de, de, de, dans un gouvernement. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai sans hésiter euh, accepté de venir me renforcer pour qu'on puisse travailler ensemble. Et les autres candidats n'ont pas été formés. Donc euh, voilà, ils étaient un peu hésitants. Par contre, le président Malignan a souhaité ses accords. Et là, dans, ce, dans cette euh, même ordre d'idée, je suis en train de regrouper toutes les femmes, filles et cadres de ce grand merci ah. ok merci. on est ensemble.